non non non man xam nga daal yow c'est pas du man xooloon nekkul dafa dafa sama xol la nekkoon sérieusement je suis pas une blanche arrête de me traiter de blanche sérieux arrête quoi aw mën naa dem léegi ah. léegi non non mënoo dem. si man maa yóbbu waate nag. amul problème doo wax ba pare dem. d'accord léegi da ngay calmer. da ngay calmer <laughs> fii calme rek la slow down da ngay da ngay da ngay calme. moori ma ca Ndar ak moori ma ca Waalo maa la ko njëkk a wax ci télévision dëgg loolu du dëgg. donc maa la gën a maa la bi may xam ne doomi géwél nga sax gar mi xamu ko dëgg loolu dëgg ñaari fan nga fi def ma ñëw ne la lan moori ma ca ndar moori ma ca waalo ali penda ball bay ma kumba sanjee mi dëggeen mi ci waalo kon kan moo xam ne doomi géwél nga mais écoute loolu loolu loolu loolu laa wax tey parce que tey yëfi tubaab nga ma wan wax la ñu tubaab nga je mais chaque jour géwél laa lay woowee mais moo ma gënal baa ma gënal mais voilà donc su ma la woowee tey géwél suba su ma neexee ma woowee la tubaab je préfère je préfère non fii ku fi nekk ñu ma neex laa lay woowee man en tout cas moi je préfère que tu euh, mais man li ma préféré laay def ci émission bi pas du mais li ma préféré laa def ci émission bi. on peut non du ñu a <laughs> tant que décidé wu ma pour mu aller. <laughs> na. façon <laughs> a aucun souci. donc lundi woowee naa la géwél su ma neexee tey mu woowee la tubaab. tubaab bu ñëwoon dëgg loolu dëgg. parce que xam naa tubaab wax nga dëgg xam xam naa ne du tubaab je devrais même pas parler. mais voilà donc tu as parlé donc mënuloo dem tant que autorisé wu ma ko. bien sûr. bien voilà Mori ma Ndar Mori ma Waalo Ali Penda Ball Bey. Mhm. loolu maa la ko wax bari ki démb. donc xam naa ni géwél nga. kon sa doom la ah. sa ah, sa ndoxu géwél si sama sama nijaay la bu <laughs> baax wan ma ko it voilà donc léegi da kal bàyyi sa yaram mu glissé <laughs> parce ku nekk ak man il faut nga bàyyi sa yaram muy glissé nga dugal ko ci ay pot diw sa yaram buuru sufia après ñu mën la dugal comme il faut mën laa mëlañ mëlañee d'accord c'est comme ça que ça se passe ici alors beaucoup de commentaires que nous